Pragmatismo. Wow. PSHS. Wow. muy def caos social. waaw caos social moom. Ah, defe naa prison ba que é waaw. tabaco na fa ay tabax. ah. 120 mètres carrés. 120 mètres carrés boo tabaco ne tabax na ko ci biir prison bi. ci biir prison tamit mi ngi don song fofu ngir def ko waaw peinture nako indi fa ay matla waaw ko poste de santé. parce que nee ñuy mënatu nit. di la yóbbu ngay fañu ji si biti. rafetul say njabo di la gis. ñi mënatu ñoo ko ba. mu def ko ci biir. waaw euh, mu bëggon ka def xawma tax agalé nako <laughs> ci biir prison ba. waaw. oustaz ndax da nga am financement bu ñu lay jox. wala da nga riche. wala fan nga euh koom-koom bobu ba songu projet euh haaj goor dafa am xaalis nag dafa mhm. man. Mhm. sama dara sama dara génnul yàlla. bu ma koy génn di alku ndax gis naa ko laxasu ci nit mu làqarti la nga alku ma gis ko laxasu ci nit nit gis ko laxasu nit mu bala nga toro ma xam ne ki nga xam ne du la baax ba ngay toq ma nii du la baax ba sa biiru yaay du la baax ba ba ngay judd du la ba ba uutal la ween wooy nàmp def ca meew du la ba ba nga bijjaaw soo ko bàyyee àll riiru wu ma fenn ku dul ci sunu borom bi may songu prison bi ñii ma àndal woon na aw ma cent mille francs directeur bi dafa ñëw fekk si ma Sud FM ma liggéey ba wàcc mi mu ñëw wax ma ko ma ne ko dinaa fa ñëw xool bi ma ñëwee ma visité xool ne poste de santé bi ma ne ko bu leen ci gënal mu ne ma bërëb bi xat na ba dañuy tegaloo ñu bëggoon fu af pour ñëpp mën a nekk nekk bu baax. Hmm. ñu wan ma fa benn bayaal ci ginnaaw muy cent vingt mètres carrés ma téléphoné soirée fils bu Thiès xam ngeen ko. soirée fils waaw baax. Hmm. baax sama wëllëri murid la. Hmm. sama xarit la. fan yele rek tabax naa benn kër moo ma financé matériel bi yëpp man di ko fay mu ne may naa la ko. ma woo ko mu yónnee ma ciment ca bërëb maak moom mu may lebal may liggéey su ma foree fay yàlla may ma ñu baax sànne yàlla dafa ma may ay wóllëre du ma ñaan nag jamais ñaan du la wëri du la seeti boo ma joxee sa numéro fàcc naa la waaye nag sama rab li muy gën a bañ ku faj ko sonn ba ma demee gis mu xat ma sonn ci un mois laa ko tam maa fa demal sama bopp moo dem xool ko maa ànd directeur bi topp néeg par néeg bi quatre-vingts personne et quelques nit ma xam ne jaadu mu ne ma fii euh, buñ ko defee rek Iran ma ne ko ah, mu ne ma sayee Thiès jeexal nañ ci coono jeexal nañ ci xataay may liggey ko am ñuma fekk ci buntu sànq ma ngi taxaw ñu ne ma waye yow xana yego ni ku tabax kasu dugg ci kan ma la wax lool ña ma may li yëg ko kay. ñu ne ma tax nga di tabax may len kan mo meuna a tabax bâtiment bam yegg ci duggoo ci il faut nga dugg ci xol ko de. waaw dugg dugg la rek. dugg dugg la rek dugg dugg la rek may len nit day gem yalla may len may len nitu yalla dañ la ko seeti de. dugg dugg la Cheikh Amadou Bamba est-ce que tabax na kasu. Serigne Cheikh tabax na kasu. yonent yàlla yusufa tabax na kaso mais kenn ku ci ne sonnal na yéen dogalu yàlla bu ñëwee kenn mënu ca dara dëgg la démb laa inauguré benn daara alaaji maam góor kan maa ñee àndoon démb laa ko inauguré mu pare démb démb démb mooy euh, mooy mooy mooy mooy dimanche démb laa ko inauguré waxtu yëpp maa nga foon ci samay la ñoo ma ci jàpp leer na bu ma dajalee xaalis du ma ne kenn nàngam bi may liggéey boobu Sud defee moo ma ci gunge Sud defee bu cees ñu annoncé ko ñëpp jàmp ci ñi am karo indil ma ñi am ciment indil ma ñi am fer indil ma am na xale bu ne Thiès ngeen di ko tudd ku baax Mouhamed Ndiaye. Mouhamed Ndiaye moo ma jox 10 tonnes ciment. Mouhamed Ndiaye. ñu xarit la ma xarit suma rakk la. Mhm. ndeysaan jërëjëf. mbay sincère. waaw. Euh, euh, Mbaye Guèye. Mercedes euh, Mercedes voilà. bëri naa ay partenaires yu ma jàppale. ki dañ naan la looy songati wax ma ko bi may def suma gàmmo promenade. ajjuma la Mouhamed Ndiaye fekk ma ci promenade bi ne ma ndax amoo amoo benn projet boo war a def ma ne aw ma benn. campagne naa laa war a dem mooy fi ñu denc ci jigéen ñi. Mhm. te pareegu ma ko. donc loolu doo xaar état. dëgg mënul def lépp. ci état la muy def moom la concerné nit ku ne war nga jaamu yàlla ci sa côté maam ala jab danaan wax ne làmmiñ boo ca mënee dimbali nit ah. teel ko caa dimbale balaa ko sax yi lekk saa neex yow man ngaa wax yow hmm. lu tax sama soxla fajo waxal ma ko dëgg la Cheikh Ndiaye mën ngaa wax loo xam boo ko waxee Iran soxlaam faju wax ko alaaji góor a noonu mais boo ne doo ma ko wax adduna tukki gannaaw man wóor na ma ne suma àddoo baa ma jóg yàlla mën na ma suturaal ma defel ma def